élection présidentielle bi euh amna nak ay xibaar yi nga xamantene jot nañ ko taataan. Mhm. ñu né danaka dafa melni jot nga dem retirer euh li nga xamantene moy ce ce kit parrainage mhm. ndax loolu mu nga ko déggal fimné waaw waaw bi nga xamee ni que génn naa ci état bi démissioner ci Benno Bokk yaakar dama ak sama mouvement ñu né ma kat mbiri jamp na. fi mu euh né ma dañu bëggone euh ñu dem retirer fiche de parrainage pour manam éventuellement sa candidature. Euh, ma d'accord ko signé ko ñu dem de euh, parrainage vraiment ma ci pour remercier len parce que def nañu liggéey bu mucc ayib gis ko mu nak sama décision décisions. ndax un euh, candidat lo am am mouvement politique bu nek ci sa ginaaw yow sa décision bop la amna ci solo légui nak bi nga ni ko Sénégal ndax Sénégal mo Sénégal mo intéressé te bu Sénégal intéressé les léeg da ngay et sa bopp ma décidé que ne élection présidentielle yi ñu jëm ci 2024 du ma ci bokk du ma doon candidat waaye teewul ma bàyyi politique teewul ma néewal doole sama mouvement ma ni leen li ma leen di digal moom mooy ngeen continuer di massifier mouvement bi continuer di ubbeeku maanaam di am yeneen nit yuy ñëw uh-huh. te élection présidentielle bi mënu mënuñoo doon président président Ben lay doon. kenn lay doon. ñëpp it ñu doon candidat. Il y aussi ay élection yo xamé ni que yu bare lay doon. yu nekk ci calendrier bi bo ci jëlé lu élection législative mané len ngeen continuer travailler pour que ñu buñu nous ci élection législative nous ñu mëna am ay député ndax assemblée nationale mo moy contrôler liggéeyu exécutif bi fofu tamit ku fa dem yaa ngi askan euh, donc objectif moom assemblée nationale ñu mën am ay député yoo xam dañuy contrôler liggéeyu exécutif bi loolu daal moo nekk suñu démarche li nga élection présidentielle bi dañuy xool euh, maanaam tey jii mën pour wax ci dinañu déglu ñëpp d'ailleurs am na ñu bari ñoo xam ne sàkku nañu pour ak ñun dinañu déglu ñëpp dinañu xool programme yëpp dinañu xool surtout li nga xam ne que mom la askanu Sénégal bëgg ndax ñun Sénégal moo ñu intéressé mom moy euh, euh buñu démé bay jël décision buñu démé bay jël décision décision de raison lay doon té boo décision de raison mom moy dem nga vers les populations xool nga lan la population yi bëgg xool nga yaakaaru population yi nga dem vers décision yooyu waaye pour le moment amagul benn décision boo xam ne jël nañ ko mën nañoo intervenir mën nañoo bañ intervenir donc pour wax bi leer mhm. ndax politique moom dafa doy waar euh, comme on dit c'est un terrain glissant ah, tu vois waaw donc euh, ma bëgg mu leer nañ mhm. ànduñoo kenn man un candidat ci élection bi di l'élection. sunu objectif mom moy dem ci élection bi nga xamé ni moy top ci élection bi Nous kenn ñu kenn dañu déglu ñëpp Nous a ñëpp dañu mëna recevoir ñëpp décision waré am ñun euh, euh, décider exactement lan la ñu def décider pour wax mën décider pour bañ a wax message bi ma bëggoon jàllale te muy message bu leer plan B amul plan C amul plan X x <laughs> non mu leer lolo, <laughs> naa ne nañ leer euh, ci beneen fànn mm-hmm. depuis